ngeen di dund màggal gi en temps réel ak académie Minane ngeen di si ond ak tapis rouge si Touba jàkkaarloog ak ancienne banque islamique bi barab bi leen di yembal lépp luy meuble yi seen puce pro mobile plus qu'une puce pro la bul ko jaawale ak it seen frigo Touba 28 fii nag mooy spécialiste des marques lépp lu ngeen bëggati si frigo de qualité ak si leen seen teranga supermarket barab bi moo xewali mi ngi si Touba jàkkaarloog kër Serigne Modou Bousso Dieng Canal Plus Store Touba ci 28 décodeur à 1000 francs ak sa ak Serigne Mohamed Samb soldaaru Serigne Touba ci xam-xam bu sell ba màggal Touba takkal sa masque ngir roy sëñ bi. waaw duñ fi ñëw madame euh, Sall première dame moo ñu yónni ñu ñëw ci xalif bi indil ko ay matériel matériel boobu nag nda di benn appareil la pour raxasu appareil boobu xale bi nekk sama wet tudd Ibrahima Ndiaye moo ko créé. yàlla def ci seen télévision RTS la ko président gisee muy nañ ko waral xale bi ñu wër ko ba indi ko président encouragé ko euh, jàppale ko ni ko demal nga ànd ak xale waa Géejawaay ngeen defar ci yu bari ñu mën ko tasaare fu bari ci la ñuy indi donc euh, ñeent fukki appareils yi njëkk a defar moom la première dame ni nañ koy yóbbul xalif général appareil yi ay raxasukaay la yoo xam ne automatique la da ngay tàllal solo loxo rek mu jox la saabu nga tàllal feneen mu génn ndox ba noppi solaire lay doxe bu guddee automatiquement lay taal boppam vraiment muy euh, lu xarañ loo xam ni xale yi jar nañ félicité donc ci ci loolu noonu loolu ñu fi woon suñu tànk ñu boole ci ay masque aussi ak euh, li mu àndal lépp saabu yeeg li war a ànd ak euh, appareil yi ah ñun daal suñu xel suñu xol sedd na ndaxte xalif bi apprécier na ko ñaanal ñu ñaanal président ñaanal premier dame ñu yaakaar ni dina amal solo population yi trop parce que depuis trois mois ñoom ñoo ko defar di ko testé di ko testé ci banlieue dakaar bi te nit ñi apprécier nañ ko bu baax ñoo ngi espérer kay ñëpp jàpp ci pour xale yi man ci produire lu bëree bare bëri gis ci seen bopp tamit ndaxay ay emploi lay créer euh, ñi nga xam ni gis nañ ko mu intéressé leen ñu man la approché jàppale leen comme ni leen président jàppale mu mujj mu mën a jur leneen ci biir quartier yi xale yi dëkk. waaw tey kontaan rek kontaan kontaan ba daanaka mënuñu wax lépp. parce que xale bi recevoir nañu ànd ci at euh, monsieur le ministre conseil Abdou Aziz Mbaye président ni woon ko joxoon ñu pour ñu defaral ko une quarantaine de machine yoo xamante ni defar nañ ko ñu essayé ko pendant une durée mu prévoir on indi ko ci màggal gi pour jàppale xalif bi jàppale ñi fi màggal ci yëpp nga xam ne jamono bii nga xam ne mbas mi dafa am doole ci réew mi sonal nit ñi mu bëgg leen jàppale ci wàllum raxasu ñu mën a di euh, mucc ci mbas mi comme que chaque màggal dañuy gis ay millions millions personnes di fi daje. waaw su ma waxee dëgg musuma bokk APR musuma am xaritu ministre mais président dafa ma jàppale en tant que citoyen dañ ma invité ci seen télé bi ma defaree sama machine bi génne premier prototype bi ñu invité ma président toog seetaan émission bi kontaan woolu ma ba këram ñu toog di waxtaan jour boobu vraiment dama am mbetteel ci moom. parce que lu ne ngay dégg réew mi ñu koy wax mais bi ma demee ba toog ci këram dama mel ni ku toog at sama ndawle en tant que ingénieur bi mu doon ñu toog di waxtaan ci domaine yu bari yoo xamante ne ni man daal daf ma bett trop mu doon nit ku yaatu koo xam ne ni invité ma na ma këram pour ma dimbali ko defaral ko ay machine defu ci wàllum politique defu ci wàllum dara musuma xam lu dul gis ma si seen télé ma def émission mu kontaan ci bëgg maa jàppale bëgg jàppale jeunes yu bari nekk sama ginnaaw mu invité ma. am nañ yeneen projet yu bëri am nañ projet yu bëri parce que d'ailleurs dañoo am équipe bu mag boo xamante ne ñun ci wàllum inventé loo xamante ne ni jumtukaay yoo xam ne askan bi dañ koy soxla surtout suñu réew moo ñu tax a jóg waaw. ngeen di dund màggal gi en temps réel académie minan ngeen di si onde ak tapis rouge si Touba jàkkaarloog ak ancienne banque islamique bi barab bi leen di yembal lépp luy meuble yi seen puce pro mobile plus qu'une puce pro 75 la bul ko jaawale ak it seen frigo Touba 28 fii nag mooy spécialiste des marques lépp lu ngeen bëggati si frigo de qualité ak si leen seen teranga supermarket barab bi moo xewali mi ngi si Touba jàkkaarloog kër Serigne Modou Bousso Dieng Canal Plus Store Touba ci 28 décodeur à mille francs ak sa ak Serigne Mohamed Samb soldaaru Serigne Touba ci xam-xam bu sell ba màggal Touba takkal sa masque ngir roy sëñ bi